waral interview bi nag euh, mooy wax diggante li ñuy wax mbëkk mi Barça wala Barsaq di ma permettre avant tout euh, ma jaale euh, wéyjuru ñi des géej gi di ko jaale seen ay mbokk di ko jaale askan bi teg ko nag ci loxo njiitu réew yi le président Macky Sall ak le président Adama baro Euh, di ñaan yàlla euh, yàlla na leen yàlla xaare àjjana euh, mbëkk bi nag métti na trop mbir mbëkk bi lu doy waar la Gambie ak Sénégal rek mënuñu ko regle parce que dafa wund lu bëri li waral xale yi nag di jël géej gi lu ñu war a taxaw seetlu la taxaw seetlu ko nag fekk duñ si def coow ñu def ko ci fulla ak fayda parce que xale bu taxawee ba nee la dund mbaa dee rek lii laay def am na fenn foo xam ne dafa toll te dafa sës kon su boobaa bul xoolati deewam xoolal ko bëgg a bëggam nga xool noo koy accompagner nga xool nooy ànd ak moom si bëgg a bëggam boobu parce que jël na dee bi teg ko si taabal gi kon xam na ni moom dee bi jaralatu ko dara léegi nag lan moo waral loolu mooy dem dem bitim réew pour lan pour sàkku sàkku pour lan pour mën a taxawu seen ay wéjur taxawu seen njaboot ngir tekki euh, ñu nag dañu yaakaar ni que euh, suñ leen newee tekki jaru ko te moom mu jaral leen ko day indi euh, xaajaloo suñu diggante liñ leen mën a wax rek mooy ni que delloowaat seen xel delloowaat seen xalaat delloowaat seen xol xam ni xaru jarul te tekki tekki jarut a xaru suñu àndee ak dal ak xel rek allah kulli seen wërsëg fu mu munti nekk dañ ko fa fekk ñu daal si një njëlbeen euh, si xel bu gàtt loolu lañu ñu mën a wax si si mbëkk bi mooy ni que euh, réew yi ñi yore réew yi nañ ko euh, jàngat si fulla ak fayda ñu bañ ko waxee nii rek muy nekk waxu coow waxu noo waruñu dem ndax ci kulli alit dem moom. Euh, ndëgëm picc yaa ngi naaw di dem mala yaa ngi dox di dem euh, nit yi dee ñu dem dem bi nag ñu xool ni mu waree ñu fexe ñu demee noonu defe naa mooy li rafet te mooy li gën. Euh, ñu ñu ñu rafetlu ko trop bi ñu ko déggee moom dañu ne loolu sax dafa war a law loolu li ngeen war a siiwal la ñu xam ne am na kuréel yoo xam ne ñu ngi toog mu nekk diggante Gambie diggante Sénégal diggante Guinée Bissau diggante Guinée Conakry diggante Côte d'Ivoire diggante Mauritanie. kooku daanaka laal na espace CEDEAO bi donc euh, loolu lu ñu war a euh, renforcer la euh, njiit yi jàpp si loolu parce que gis nga mbirum immigration clandestine bi Sénégal kese mënu ko régler Gambie kese mënu ko régler wax naa ko si njëlbeen il faut que sous région ouest africaine bi ñu toog ñu saytuwaat mbir mi parce que Sénégal bu téye ay doomam ay doomu Gambie dañu génn Sénégal ak Gambie bu ñu téye seen doom. doomu Mauritanie dañu dem donc lan moo waral loolu yëpp mu nekkandoo benn say loolu lu ñuy toog waxtaan la te yéen seen kuréel yooyu ngeen teg wax dëgg yàlla war na si mën a jouer benn rôle bu important par rapport ak sensibilisation bi Sénégal Gambie benn bopp la euh, Guinée Sénégal benn bopp la Mauritanie Sénégal benn bopp la réeroo amul ñàkk waxtaan moo am te ni ñuy fexe tamit ñuy xool alal bi nga xam ne Union européenne mu ngi koy dugal si euro si Afrique. dans le cadre de ces projets ñu xool Afrique tamit nan la ñuy mën a toogee waxtaan seen biir xam nga man lan laay ñaawlu nan la waa tugal tubaab yi di jëlee alal di xeex immigration clandestine ñun africains yi ñun di réew yooyu nga wax noonu ñun mënuñu jël dara si sunu alalu bopp dugal ko ci immigration clandestine parce que xaalis bi ñuy wax bii xeex immigration clandestine yépp ci tubaab yi la jóge ñun nag sunu réew yi du ñu def benn alal buy xeex ci loolu te alal bi nga xam ne mu ngi si suñu dëkk yi parce que boo xoolee suñu dëkk yi am nañu jën am nañu ndox am nañu or am nañu pétrole euh, maara day taali waxuñu si si si gàncax bi lekk loo si bëgg fii mën nga ko si béy donc loolu yëpp alal boobu yëpp taxul ñun suñu ay doom ñu ngi wàlli yaan am na problème bu am problème bi du xale yi xale yi li leen di yóbbu lañu war a xool lan la tey boo xoolee xale nga nekk sa biir kër nga xëy gis sa yaay war a teg cin amul lu muy tegee cin nga gis sa yaay feebar nga war ko mën a jox ordonance amoo foo koy joxee ordonance nga tourné gis sa morom bu nekk bitim réew xëy bu yaayam feebaree mën a koy dugalal ma mu dugalal ko seen kër boo ñëwee dañu lekk ba diw bi di siit seen kii di nga ne bitim réew moo ko yore fekke ne nag beneen image la mooy loolu la ñu war a fexe ñi fi nekk te bëgg fi parce que Afrique keneen mënu ko développer lu dul Afrique doomu africain yi rek ñoo mën a développer Afrique mais comme bi am Afrique na koy doomu africain yi di ko gis am si seen njëriñ taxaw si loolu rek moo mën a développer Afrique loolu moo mën a téye xale yi ci seen biir réew yi. Euh, xeeb waru si am parce que comme la rek mais xam nga lan moo si am solo mooy ni que si euh, liñ leen di jox pour ñu koy liggéey nay barkeel te day doy te ñu gëmloo xale yi xam nga xale yi tey dañu gis ni que sunu njiit yi ñenn ñi bopp bu leen méttee sax ñu jël avion. loolu la ñu war a fexe mu dog ñu fexe am ay infrastructure yu doy jàng bu mat liggéey bu doy liggéey bi mu nekk liggéey boo xam ne liggéeyu fulla ak fayde la parce que liggéey bu ñuy xeeb amul mais liggéey boobu bu ñu ko valoriser xamal ko ni que li ngay bale fii noonu nga war a bale jee fële mais si wàllum koom wàllum am-am bi kee di am junni yow nga am ñetti juróom benn téeméer amaana na dina dalloo sa xel si am-am bi lañu ñu war a fexe yokk ni xale yi toogee. parce que nag kële mënul dem di bale ji foofu di am junni yow nga nekk fii di bale di am dërëm nga bëgg ko toogloo wala du xool foofu donc loolu déséquilibre boobu bés bu ñu ko réglé amaana ni ba pare jox xale yi tamit euh, opportunité yi nga xam ne mooy opportunité wul liggéey liggéey am na Afrique dañ ko structuré wul loolu foofu suñ ko renforcer bi nga xam ne xale bi dina gëm boppam dina am koom amaana ni mbëkk bi dina wàññeeku. xam nga mécanisme yi am si wàllum diplomatie euh, ñoom dañ ko teg mais wax la rek si kàddu rek lañ ko teg si kayit rek la nekk dafa war a fës dañ ko war a doxal parce que su ñuy wax waxu CEDEAO di wax laa liberté des personnes et des biens la liberté de circulation des personnes et des bien maanaam nit ki ak alalam ak ay kiiwam war na mën a dem fu ko fu mu génn biir CEDEAO loolu amul man damay am ay jafe pour dem Guinée. damay am jafe-jafe pour dem Gambie tey da ngay xool sénégalais bi nekk Gambie tey am na jafe-jafe am otoom ñëw indi ko Sénégal parce que bu ñëwee ba Sénégal douane sénégalais bi duñ ko permettre te par jox ko passe avant parce que sénégalais la sénégalais la Gambie la dëkk mais pour mu dugal otoom matricule bi mu yore Gambie dugal ko biir Sénégal douane sénégalaise bi du ko permettre donc liberté circulation boobu dañ ko réglementer ba nga xam ne sénégalais bi amu si faveur donc yooyu muy ay mécanisme yoo xam ne war nañ ko mën a dindi tey boo fi jugee yow sénégalais di dem ci transmalienne bi jafe-jafe yi ngay am contrôle chaque instant contrôle police taxaw loola génnee sa carte d'identité euh, wàllum diplomatie sax moo tax du ñu wax waxu raquette yi ci am mais nag lu am la duñ ci sori duñ ci sori bañ a ñaawal wala gàkkal liggéeyu force de l'ordre yi mais raquette bu bëri mu ngi ci am ci transcrit boobu te boo xoolee dëkku européen yi certes contrôle am na mais chaque benn cinquante soixante kilomètres boo daw rek am na alkaati buy taxaw nee la taxawal sa këyit këyit bi am na lu mu war a àndal loolu dañ ko war a dak biir Afrique espace CEDEAO bi war na gën a mën a gën a yaatu mécanisme yi autorités yi di jël si wàllum cour de justice si wàllum arbitrage élection da ngay xool di xew Guinée xool nga xool di xew Côte d'Ivoire boo ñu tegee loolu yëpp dañu ne ana waa tey boo xoolee mécanisme CEDEAO daanaka benn doomu CEDEAO gëmatu ko ñun ñëpp dañ koy moytu ñu ngi xalab CEDEAO donc mécanisme yooyu yëpp boo xoolee loolu yëpp du favoriser vraiment économie wu Afrique de l'Ouest et pourtant potentiel économique bu ngand la tey sénégalaise bi war na mun juge fii dem ba Niger sénégalais bi war na jóge fii dem ba Accra sénégalais bi war na jóge fii dem ba Lomé sénégalais bi war na jóge fii dem ba Togo te doo am benn gàllankoor parce que ci loolu ñu teg ay tali yu doy yu wóor yoo xam ne doo am ak gàllankoor doo am ay jafe-jafe vraiment loolu mooy indi intégration africaine Afrique nag dañu war a mën a jug jug wut ay infrastructure wut ay barrage courant bi di doy ndox bi di doy téléphone yi ñu da ngay toog fii dangay xool actuellement Guinée pour des problèmes d'élection ñu couper communication yi doo mun a jokkoo ak sa ay mbokk doo mun a jokkoo ak sa ay xarit frontière Sénégal Guinée mu ngi nii tëj tëju pour des question politique ñii feebar nga am ku feebar buggoon ñëw Sénégal faju mënatul ñëw nga am sa mbokk bu làqu Guinée mënatoo dem loolu yëpp nga am sa marchandise bu nekk Guinée nga waroon ko indi Sénégal pour de questions purement politiques ñu ngi tëj frontière bi léegi mu def ay weeri weer mais est-ce ñoom ñu ngi xalaat population bi ñi jël décision politique yooyu est-ce ñu ngi bàyyi xel ni que benn tracé la rek loolu warul am suñu diggante tey quel que soit les problèmes politiques yi am diggante Côte d'Ivoire ak Guinée diggante Guinée ak Sénégal population yi waruñu ko sonn waruñu ko warul mun a nekk coono population yi ñoom war nañ ko mun a lijjanti au niveau diplomatique au niveau politique fekk les populations à la base waruñu si sonn waaw